bii ñëw mais dafa war a am nga xam kii fan la jóge fan la dal lan lay def ci dëkk bi loolu dëkk bépp boo gis dëkk bu sérieux dafay am loolu yow est-ce que osé nga xëy rek débarquer en France rek toog ci ron pont rek commencé di euh, amul mm-hmm. c'est-à-dire de sécurité nationale malheureusement malheureusement nit ñi ñu ngi jël débat bi di ko détourner jàpp jàpp ne c'est de la xénophobie wala ay mm-hmm. affaire de nationalité non c'est pas ça mm-hmm. gis nga réew yi sérieux yëpp réew yi sérieux yëpp étranger bu fa dugg dinañu xam kañ nga fa dugg fan nga dal lan nga fay def mm-hmm. par exemple tey boo ñëwee ci gannaaw aéroport bi am na ay femmes yu nekk foofu ak ay góor xaw ma ay aw sax lañ xaw ma ay lan def ay tànt def ay tànt man benn jour dem naa fa mais damaa tiit fekk ma doon sport damaa mujj weññeeku parce que dama gis tante yi rangale nii man ku ma ne woon loolu am na fa dem naan la non c'est pas vrai ñu nga fa ñoom ak seeni ay góor ñii muuru ibaadu góor ñaa ngi fa sol ay xaftaan yu cëkk ñu nekk fa kenn xamul lan lañ fay def làkkuñu pulaar làkk man daal xaw ma sax làkk bi ñuy làkk ba pare yor ay xale yu ndaw mhm. mais ça il faut que l'État xam ñooñu lan lañ fiy def fan lañ jóge on peut comme ça mënuñu leen bàyyi noonu mhm. quand gis nga un pays sérieux on n'est pas contre munuñu bañ étranger nekk ci dëkk bi il faut encore que ça soit très clair mënuñu bañ suñu mbokk yi voisins yi ñëw dëkk nekk fii parce que ay sénégalais ñoo nekk ci seen dëkk. Mhm. mais nag gis nga seen nekkin da koy tegu ci yoon boo bëggee dëkk bi am sécurité ba pare jaar yoon mais on peut pas débarquer comme ça. ñëw samp sa benn wala nga fekk kër gu ñu abandonné nga dëkk fa nekk fa ak say njaboot kenn xamul ban activité ngay def mhm. parce que am na yenn am na yenn et je m'excuse du terme mais am na xeeti rey yu ñu fi doon dégg mais tu te dis est-ce qu'un Sénégalais peut faire ça mhm. est-ce que Sénégalais normal est-ce que qu'un Sénégalais dina def lii te yooyu yëpp nag li koy indi mooy parce que pëj dañu jaxasoo xamuñu état bi il faut nag mu lijjanti loolu mais lijjanti bi nag il faut que ñu def ko avec diplomatie pour ne pas frustrer ñoo nos voisins parce que mm-hmm. barki démb xawma démb dégg naa benn collectif bu bëggoon def benn marche un peu lu jëm ci exiger les étrangers ay carte séjour mm-hmm. ce ne sont pas des actions comme ça yuy régler la problème parce que dañu nekk ci benn bloc boo xam ne ñu ngi ci biir CEDEAO am ay textes ak ay chartes yoo xam ne moo ñu tënk le Sénégal ne peut pas de façon isolée di jël yenn décision yi. Mhm. ba pare bokk ci CEDEAO. donc moi je pense que. xam nga xam nga Samba. waaye. Samba man dama lay rejoindre. Mhm. gis nga dañoo créer CEDEAO. waaw def carte d'identité CEDEAO. Mhm. ñun ñëpp ñu bokk ko. moo tax sànq ma leen lépp loo gis amul bonne organisation amul planification du dem. du sori. la première faute c'est aux états membres de la CEDEAO c'est-à-dire dañoo ëngëmloo ñan seen biir rek jël décision seen biir par rapport aux libre circulation des biens des services et or dañ ko waroon yaatal informe la population mhm. que celui qui en Guinée a les mêmes prérogatives s'il quitte la Guinée il vient au Sénégal mais dafa dafa dafa laaj encadrement bu ñu waxee loolu mhm. ñu ne ah attention waaw mais loolu bu amee pour ñu identifier ko pour que moom mu xam ne jóge na Guinée dugg na Sénégal lii moo koy mandargal loolu nag carte séjour na commencé ñëw. Mhm. parce que l'Union européenne ñoom <laughs> même boo nekkee France. nga nekk euh, euh, nu mu tudd euh, Allemagne. Mhm. <laughs> on sait que c'est un Français qui se trouve en Allemagne. Mhm. loolu il faut ñu seen en Afrique fii aussi ñu def loolu. mais ici. li ñu seetlu mooy celui qui n'est pas de la CEDEAO ou celui qui n'est pas africain il est plus à l'aise dans notre pays que celui qui est dans la CEDEAO dans l'espace CEDEAO mm-hmm. et c'est ça qui est anormal beneen bi mooy sàmba fi nga laal mm-hmm. euh, dafa dafay metti xam nga mm-hmm. du xénophobie non non du ay dañoo bañ làkk bi dañoo bañ non non non c'est-à-dire pour la sécurité même l'étranger baax na nga am carte de xam nga dafa mel ne ku ne ku ne rek man non ñun bëgguñu commissariat bi suñ carte suñu koñ. boo leen bëggul seen seen commissariat bi seen koñ. c'est mhm. parce que bëggu leen seen sécurité. dañ ko samp pour seen sécurité. Mhm. policier buy def patrouille gendarme buy patrouille la la nuit bu dajee ak yow nga daw parce que da ngaa lëndëm ah. mhm. am na lu xew de. waaye yow boo boo nit boo nekkee nitu dëgg nga ànd ak am sa papier nga xam ne yow defoo dara. mais boo dajee ak gendarme au moins da nga ko war a informer parce que gendarme bu la jàpp wala policier bu la jàppee daf lay laaj fu dëkk ainsi de suite peut-être yow mën nga ko jox ay information est-ce que mën na la wax ne est-ce que kii diw da lii ah, jaaru fii est-ce que lii peut-être mën nga ko orienter. Mm-hmm. donc c'est des mesures sécuritaires. Ouais, ouais. mais malheureusement au Sénégal euh, bàyyi bàyyi leen xel bu baax li ngeen di wax li ma leen di wax nii. Mm-hmm. vous savez que le Sénégalais ne le Sénégalais. c'est-à-dire. Hmm. tey ñu bëri bu ñu wàccee bu ñu ne nii dem banlieue ba ngoon à partir de vingt dix neuf heures jàpp minuit fu ñuy dem tàng na lay ne gargot ba. <laughs> Guinéen yi. wala de manière générale. bu demul ca gargot ma ña nga ca mayga ba. mayga ba. bu demul ca mayga ba ma nga ca boolee ca Pikine. Mhm. ba léegi du sénégalais. bu jógee ca boolee dem ca kafe ga. dem ca dem ca kafe ga. maa ngi ñëw foofu maa ngi ñëw. mais kafe gi aussi est-ce que du sénégalais yi. déedéet maa ngi ñëw may leen ma mm. rek da ngeen xam ne léegi la sénégalais ne fait pas manger le sénégalais. Mm-hmm. fast food ba du sénégalais. mayga ba du sénégalais. bool ba du sénégalais. fast euh, kii nu mu tudd. gargote ba du sénégalais. sénégalais balaa muy kontaan mu naan moo defal ma. ma defal ma spaghetti ci mburu bi mu dóoral la nen la ma la mal malbouffe dóoral la nen dóoral la mayonnaise dóoral la spaghetti mburu ba mu fees nga dem sa yoon. bu fàttee ketchup bi. ak ketchup ak ak kii nu mu defal ma moutarde defal ma jumbo defal ma lii defal ma lii ba nga dem sa yoon. bu loolu ça c'est la ça c'est la nuit la journée boo yeewoo jox nga sa soxna mu dem na uti ndékki mburu ba ca boutique ba. du sénégalais. café ga du sénégalais. meew ma du sénégalais. ndekki ngeen ba suur dem ngeen liggéey bàyyi nga fa soxna si nga ne ko añ. léegi daanaka dematuñ marché marché lañ fay wut rek mooy jën ma la mbaa yàpp. yàpp ba ngay wut ba ngay fekk marché ba du sénégalais. jën rek laa xam ne moom la plupart sénégalais ña nga ca. donc le sénégalais n'a plus la la sur le le commerce. de commerce man man de xam nga tout ça c'est mais soxna si nga bàyyi foofu. boo boo boo kiiwee rek mu naan la bu la wooy mu naan ceeb bi jox mu a ceeb bi jeex na mu ne nga ne ko demal ci boutique ba boutique ba muy dem du sénégalais ñu jox la ceeb nga ñëw nga togg euh, xorom bi manqué na nga dem nga ci boutique ba xorom boutique ba du du sénégalais donc lañ fa togg du sénégalais ñun ñi nga xamante ne ñu ngi ci liggéeykaay ba bu ñu demee ba pose dem na restaurant ba lekk du sénégalais mm-hmm. boo ñëwee yaa ngi ca kafe yaa ngi café ah yaa eh, café gooto café kàccu café citron <laughs> ñu jox la nga naan nga yéegaat mhm. loolu yëpp amul Sénégal mhm. donc le Sénégalais ne fait pas manger le Sénégalais mhm. et ça c'est extrêmement grave et le Sénégalais ne fait pas boire le Sénégalais ndox mi Sénégalais moomu ko di seenoo <laughs> dañ ko tayle waa kii ñoo ko moom nu mu tudd dëkk boobu euh, France France Suez la. Suez entreprise s'appelle Suez de la mm-hmm. ko mu jëkki-jëkkee tëj robinet yi rek ñoom ñu am problème. Mm-hmm. moomuñu ko SDE moomuñu ko. Mm-hmm. société yi nga xamante ne ay dem nañu ci pour gestion euh, l'eau rurale du ay du ay entreprise sénégalaise. effectivement donc finalement ça pose problème. donc au Sénégal on n'est pas en sécurité boo demee ba mënatoo contrôler yow sa manger. c'est parce que tu n'es pas en sécurité. loolu yëpp pour contrôler ko jàpp naa ne je rejoins entièrement Samba Ndiaye. sénégalais nu mu fu mu munti dem nañ ko exiger carte de séjour sénégalais fu mun munti dem ci Sénégal ci àdduna nañ ko exiger carte de séjour waaye Sénégal fii tamit ku fi ñëw ku ne nañ ko exiger carte de. carte de séjour carte de séjour. Mhm. xam nga am na dama dem Angola du ma tudd xeet mhm. mais dama dem Angola le le consul m'appelle je viens mu ne ma bon. Euh, bon dama bëgg nga gunge ma à la police centrale ma ne ko lu xew mu ne ma non il y yu ñu jàpp foofu souvent loolu la am problème mu ne mais boo xoolee buñ su ma demee léegi du ma fa fekk benn sénégalais man ne ko ah te man te ñu woo la mu ne mu waa parce que kayitu Sénégal lañ yor effectivement bi ñu demee 32 personnes arrêtées amul kenn ku ci nekk sénégalais waaye kayitu Sénégal lañ yor. c'est te ñoom ñëpp bu ñuy ñibbi bu ñu amee bu ñuy ñibbi Dakar liñ fi li nga leen jaaraloo fii mooy am nu ñuy paase pour lu ñuy amee billet pour dem. waaw Angola. liggéey nañ am nañ seen billet dem nañ Angola pare nañ ci Sénégal léegi bu ñuy dem bu ñu amee ñu nga jël avion ba jaar nañ foofu dem seen dëkk. Est-ce que vous pensez que ça, ça, ça doit continuer ah ouais, ouais, ouais, non, mais c'est... que Sambou, tu as, soulevé, tu as soulevé trois points. Mais bon, je commencer déjà par euh, la liberté de circulation des biens, des services et des personnes. Donc, on a créé un espace bien à on a on garantit aux personnes de circuler librement. waaw mhm. ah. c'est-à-dire que mu nga jógee Mali yor sa carte d'identité mhm. espace CEDEAO nga ñëw dugg Sénégal mais état bi foofu la war intervenir. Mhm. garantir la liberté de circulation des biens des personnes et des services warul tax ni amul contrôle. il faut qu'il y ait un contrôle qui soit fait. par exemple instant bi man période mu doon laajte comme il y a combien combien d'étrangers au Sénégal qui vivent sur le Sénégal. après cela la population totale c'est-à-dire le nombre d'individus au Sénégal ñu ñaata leen mais jusqu'à présent man données yooyu pour mu am ko c'est tout à fait un problème mm-hmm. parce que y a un problème a un problème de gestion qui se qui se passait en c'est-à-dire que les personnes elles rentrent et elles sortent comme elles veulent dans ce pays dëkk bi comme tamee la mm-hmm. dëkk bi nga am fi problème léegi nga dem côté Fouta nga jël nga gaal nga traversé dem Mauritanie mm-hmm. dem sa yoon on te ce sont les services mauriciens qui l'ont attrapé qui l'ont mhm. reconduit à la frontière mhm. te dugg na Sénégal def lu def def conférence de presse am bëgg toog fi traîner dem naan caañ <laughs> et tout ça bëgg mhm. on n'a pas pu lui mettre la main dessus c'est ça ça montre problème de sécurité dans ce pays voilà deuxièmement le, les personnes qui rentrent on doit savoir qui rentre combien de temps il fait ici qu'est-ce qu'il fait à tout instant

que veulent-ils et lan lan moo fi seen tànk. waaw mais boobu dama bëgg nga ñëwaat ci secteur bi la nga ne libre libre circulation des biens des services et des personnes. lu mooy important circulation. circulation circulation mooy. di dem ak di dem ak di ñëw waaye waxuñu dëkk nga ñëw résider. <laughs> bon mais la personne elle peut quitter mën a. dès l'instant que tu résides tu dois avoir la carte. de non mais mën a mën a mais même la carte sax mën a y a une carte bi nga xam ne ça te permet de circuler si tu circules. Euh, tu tu peux résider sur le territoire. maintenant nag le problème mooy quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour pouvoir contrôler ce flux. waaw mhm. parce que Sénégal ñun xamuñu ñaata leen. fii kenn ku mu la ne Sénégal y' a tant de millions de personnes sur le territoire sénégalais que ce les sénégalais plus les étrangers. waaw mhm. que ñu demoon Afrique euh, waa Afrique mais les européens nag les mhm. de tubaab ñoo fi nekk ñoo ne séjour 30 jours. Mhm. ba tey ba sont jamais sortis personne ne les a jamais inquiétés. on on ferme les yeux on ne dit rien du tout. duñ leen sax jàpp. duñ leen sax jàpp. alors que boo a. Euh, complexe boobu moom parce que man mënuma comprendre tubaab la rek donc lépp li muy def c'est normal quoi <laughs> tubaab la duñ ko contrôler mhm. duñ ko xool duñ xool fi muy dëkk cest que loolu il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jéem a décomplexer suñu bopp mhm. parce que gis nga réew tubaab boo fa duggee ça dañ lay soumettre à des contrôles yoo xam ne finalement tu penses que c'est du racisme mhm. mais parce que seen sécurité la la sécurité n'a pas de prix te amul tànqamlu mais ñun fii na nga nekk tubaab rek nanga nekk tubaab rek boo pour ñun boo nekkee tubaab tu en règle lu normal ngay def lu normal moo la fi indi te di fi sax bàyyi xaalis mais loolu dañ ko war a dañ ko dañu war a jóge ci loolu euh, dama dama dama dama mos a toog ak ay ay femmes ñuy waxtaan ñu maye seen benn doom quoi ma dégg leen ñu maye benn seen benn doom quoi. Mhm. ma ne leen waa may ku ngeen ko may ñun ii benn tubaab lañ ko may bu dëkk fële ci Hollande. <laughs> moom k moom kay macha allah. ñoom jàpp nañ ne tubaab la olaan la jógee rek. yor na xaalis <laughs> moom ñoom loolu lañ def ils n'ont pas cherché à comprendre il faut que li biyaa gi doon wax il faut que Sénégal bu bëggee renforcer sécurité bu bëggee waxuma la sax mais en terme économique. en mhm. terme économique mais c'est des rentrées d'argent. bien sûr tey ñi fi nekk ci euh, étranger ay mhm. étranger. mais bu ñu di bu ñuy wut carte de séjour chaque année. mais c'est combien de combien de combien de combien de millions ou de milliards yu dugg ci kees gi. Mhm. Mhm. tey gamoo nga nekk fa. Mhm. mais pour l'année déggoon ma la tu payes deux millions. pour am carte séjour. Sénégal fii mu toll nii nit ñi dañuy daw ci gannaaw Sénégal parce que Sénégal mooy doon futur je touche du bois mais futur <laughs> Eldorado de l'Afrique. donc il faut ñu gëm ko ba pare. préparer wu ci loolu. les gens vont venir au Sénégal. mais demal dans les mines là ah ay Sabodala affaire ña fay liggéey c'est des Burkinabés. c'est des Maliens ah ñoo fa fees dell mais loolu yëpp ñun contrôlé wuñ ko xamuñu ñooñu lan lañ fay gagner fan la ñuy loger lan moo leen fa indi tout ça on ne contrôle pas te nag réew bu demee ba am yenn gàncax yi commencer di ko exploiter il faut qu'on renforce la sécurité la sécurité ça a renforcé c'est qu'il y avait benn période bi nga xam ne fii. c'était la laisser aller est-ce que ça a été renforcé. ça va mois li def ci au pouvoir coalition bi deux de. et on a trouvé millions de problèmes. mais bu fàttee ni que y avait un certain laisser aller. Mm-hmm. bi nga xam ne c'est laisser aller là qui a permis tout cela. waaw gëmm bi l'informel prendre le dessus sur le formel. Mm-hmm. comme Maïga yu muy wax et tout ça sont des économies qui doivent être taxées. Mm-hmm. que tu sois étranger que tu sois résident du territoire on doit on taxer mais pour cela man je dis à chaque fois ni que par exemple une boutique. boutique parce que tout waaw oh, waaw jamais avancé donc mm. le si reggae tamit euh, si sàmm loolu si loolu bëggoon naa ci kii j'allais y revenir sànq ci sàmm lu mu doon wax mm-hmm. mooy les méga tout ça là mm-hmm. mais ce sont des économies informelles qui doivent se formaliser quoi quel que soit le niveau de formalisation ah mais on doit les formaliser pour pouvoir les taxer et ensuite les contrôler mm-hmm. les contrôle nag c'est un contrôle fiscal et un contrôle sanitaire parce que tamit ubbi ñëw ubbi men benn saar yu ñëw ubbi sa kii méga di jaay kenn xamul yow fooy jëlee sa bagage yi ah loolu tamit war war nañ ko xaar am na ay fii gars yi jaay sandwich téeméer da lay door a sandwich bu mu fees den ak yàpp ak yàpp yu mu seere se poser question de mais d'où vient la viande mm-hmm. ah d'où vient la viande ah, mais tout ça tout ça là on doit wala foie waaw mm-hmm. ah, foie bi foie bi déjà day am goût bu bizarre foie wu la mel na plastique aussi waaw mel mm-hmm. na plastique foie wu la foie bi fan la jógee on doit ci moom laa doon jëm si dama doon xaar Saliou daaneel <laughs> <laughs> ma dalal ko comme moom dafa tardé <laughs> bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mm-hmm. boobu bee doon métti ma jaar pharmacie jëndaale sa ndax nelaw maa ngi laa ziar dugg si naa fekk la ngay wax waxi ketchup Samba Ndiaye. fi nga toog nag mooy sa place. samedi dañu def erreur. samedi def erreur de casting samedi moom dañoo def lu nu neex. kenn xam lu nu def. émission bi mu ngi door a commencé. projet bi gis nga nag li ñuy daj pour mu toog fii. ah bon. waaw ah, bàyyi bàyyi ba. non loolu hors antenne la. ah non hors antenne la ah, tamit. ah, ah non lan moo xew. lii la fi xew. pour mu dugg yow loo ma ci wax loolu la. <laughs> kii moom. Samba. lu ma si wax loogu la. la xew. la xew la xew. Mm. la xew daal. jox ko ko hors antenne rek. Ah. waaw jox ko ko hors antenne ah, rek. ah sutura baax na de ci nit sutura. ah boo caméra yi taxuñu woon. waaw caméra yi taxuñu woon non kon hors antenne la kon hors antenne. non ah, caméra yi taxuñu woon. comme caméra yi taxul. tu fais la présentation. voilà elle s'appelle Amina voilà. dalal ak jàmm. Aminta. oui nuyu la. fay nañ la bu baax baax a baax a baax. sumaare. Mhm. Mhm. di doom bi toog di ñu seetaan. ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñëpp ak équipe technique bi. Mhm. di ñaan yàlla sunu borom mu wàcc fi xéwal barkeeg yiw sécurité moom yàlla ji dimbalin si. moo si jiitu. am na fu ngeen tolloon ci waxtaan bi fii fii sécurité rek doy na émission. 2012 président Macky Sall daf fi ñëw moo bi mu njëkk a tudd sécurité la mais ca contexte ba sécurité boo xam ni tubaab yi la doon dooleel. France nu ñu ñëwee ci Sahel bi nu ñu ñëwee Sénégal. donc moom président Macky Sall moom colonisation la indiwaat. mais sécurité bi ñuy wax ci contexte bii. mooy la vraie sécurité de révolution il faut sécuriser le président de la République. il faut sécuriser le premier ministre il faut sécuriser le gouvernement il faut sécuriser les populations surtout mu ngi tàmbali ci li ñoo lekk ak a wax dëgg wax dëgg de ñu li ñuy lekk yëpp étranger yi ñoo ñu koy jox boo bàyyi woon sax secteur informel bi dem ci bu formel bi resto fast food hyper hypermarché yëpp ñun te pourtant les mêmes produits ce ne sont que des produits transformés mm-hmm. lu nu transformé la mais yi nu yi nga xam ni dañ dañ ko dañ dafa dafa am source maanaam ca ca fa muy fañ koy bayee fa muy jógee et cetera